dans, dans ce pays <laughs> maintenant. yàlla nañu jéggal sénégalais yi ah, parce que on était presque à bord euh, d'une crise boo xam ni xamuñu woon nu ñu koy surmonter yàlla def na si ndox mu sedd mm-hmm. ba suñuy euh, ressort yi nga xam ni il reste malgré tout solide mm-hmm. ñoo gën ko prouver dimanche ba tey mm-hmm. monde bi ñëpp ñu ñu nekkoon parce que fii fii la ñu doon toog naan le Sénégal était devenu la risée du monde waaye tey je pense le Sénégal est devenu le chouchou du monde voilà curiosité bi la ñuy susciter de par le monde et là c'est tout à et la démocratie qui gagne tout le temps et toujours alors Pierre sa sa invité ñëw na Birane Diagne dama lay mm. bàyyi ak moom rek nga wéy ki moom ci liggéey bi waaw Birane Diagne présenté nga ko moom mooy euh, président des chauffeurs euh, et transporteurs patriotes donc ci euh, Pastef alors Birame Birane victoire bi yéen a ngi ci euphorie bi ba léegi wala léegi nag xaw ngeen toog tuuti pour mesurer yaakaar bi nga xam ne Sénégalais yi am nañ ko si yéen waaw Edouard maa ngi lay sa di leen nuyu bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo ne ci senegal di ñu seetaan victoire bi man mosuma bett lu ma yàgg xam la. même au premier tour. premier tour bi normalement. Hmm. maanaam victoire bi du tey yàgg nañu am victoire. mais victoire bii nag dafa nekk mburu mu ànd ak i xam nga mburu mu ànd ak i bët kenn mënu koo sàkkal fexe. moom dañ koy feete tey di ci sant gépp gi nga xamante ni bii. jàpp nañ ci pour victoire bi am ki njëkk ci sénégalais yi ñuy sant mooy président Ousmane Sonko di ko jërëjëfal moom mi nga xam ne dafa jaay àddunaam bàyyi këram bàyyi njabootam bàyyi ay jabaram ak doomam jënde ko Sénégal ni moom bu ci bakkanam dee des sax moom dina àgg fa mu jëm kuy sénégalais wala nga nekk keneen koo xam ne du Sénégal ci àdduna ci Sénégal ak ci fépp ci ak ak ci bitim réew xam nga ni président Ousmane Sonko tayale na bakkanam ndax askanu Sénégal képp ndax lu luñ ko mas a def Sénégal tax ñu def ko ko luñ ko mas a def ci lu ñaaw Sénégal tax ñu def ko ko bon kon moom mooy numéro un bi nga xamante ne bii moo moo jiite lépp te moom mooy lépp ñu ngi koy sant di ko gërëm di beral sant nag président Diomaye Faye Diomaye Diakhar fay mhm. ñu ngi koy sant di ko ñaanal parce que digganteem ak Ousmane Sonko. Euh, ba mu amee ba léegi wax dëgg yàlla kenn mun tax xam ci ñoom président Diomaye soo gisee président Diomaye gis nga président Ousmane sonk mais nga wax ni est-ce que du firndeel li di ragal. que ñu am ñaari président non ñaari président ñun Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ak président Diomaye benn nit li mais Diomaye la ñu fal. waaw d'accord nañ Diomaye président. Diomaye mooy président te naa la wax benn affaire man na nga xool rek mbiri Ousmane sonk parce que président Ousmane Sonko bu ko neexoon moom danaan budul moom rek du baax président Diomaye wax na ko ci déclaration mais moom budul moom du baax kon kon du nangoo wax keneen mu jiite mais moom nee na moom mu jiite procès bi ak keneen koo xam ne Pastef la bokk mu jiite procès bi moo ci moom moom falu intéressé wu ko li ko intéressé mooy procès bi jàll ci conditions yi mu war a jàll kon président Ousmane Sonko. ñoom benn nit lañ bu doon président Ousmane sonk moo dem ak bu président Diomaye dem mos naa ko wax benn journaliste mu nu ma yeen lu tax bu fekkee Ousmane Sonko wax na leen na ngeen watal Diomaye si Diomaye Basirou Diomaye Faye wala na ngeen watal président Habib Sy ma ne ko Ousmane Sonko yow journaliste nga président Ousmane Sonko bu ne woon sénégalais nañu watal journaliste bii 2024 yaay nekk président. kon Sonko rek indi benn sénégalais su ko fee indi. la fi nekkoon jamonoy Senghor ba léegi ku nekk nguur am alal am xaalis ku nekk fonctionnaire boo xamante ni da ngaa kawe nga nekk milliardaire ñaata fonctionnaire ñoo nekk ay milliardaire ci réew bari nañ te koo xam ni weer bu dee yow xam nga li ngay am mais li ngay am par weer boo liggéeyoon cent ans li nga am ci alalu kopp loolu la jaay sénégalais yi wax sénégalais yi ni leen ci nelaw ngeen nekk président Ousmane Sonko njaamu njaamu Sénégal njaam gi dagg buumu njaam gi moo ko def. mais bañ fi toogee ba léegi Ousmane Sonko rek ngay wax. waaw est-ce que loolu du firndeel ni en réalité Bassirou Diomaye la ñu fal waaye Ousmane Sonko moo nar a jiite réew mi. ah non bu ma nee xam nga bu nee dafa lu ma la wax. dama ne la bu ma nee président Ousmane Sonko bu ma neexee du ma ne président Diomaye su ma nee président ma neexee du ma ne président Ousmane Sonko. parce que du ñu ñaar du ñaar nit di nga tolloog moom foo xamante ni bii fu kenn ki taxaw borom ja taxaw na fa. kon da nga may comprendre que su ma nee la président Ousmane Sonko rek xamal ni nee président jomaay jaxee fay su ma nee la président Diomaye Diakhar fay xamal ni man nee naa la président Ousmane Sonko parce que koo ci tudd rek tudd nga ki waaw waaw loolu ngeen nar a gouverner réew mi <laughs> léegi yéen lan mooy seen attente lan ngeen di xaar ci président Diomaye yéen ñii di yëngu ci wàllum transport li ñu njëkk a xalaat mooy ñaanal ko yàlla mhm. yàlla mi nga xam ni moom mooy buur mooy boroom moom lañu koy ñaanal yàlla wàcce yàlla wàcce kartan ak ndimbal dolli ko ak jàpp ndig goo xamante ni bi ñoom li ñu yéene ci réew mi président Diomaye li mu yéene ci senegal ak président Ousmane Sonko ñu àggale ko parce que ñoom nee naa la ku mën a joxe sa bakken pour dëgg am soo jotee ci nguur di nga doxal dëgg tey Sénégal xam nga ne yow féppay metti ñoom fi ñu fekk Sénégal fu compliqué la mais nag naw naa leen parce que ku leen xam laa man xam naa leen te xam naa seen seen njàmbarte seen xam-xam seen fulla ak seen fay. yaakaar nga ne sénégalais yi dinañ am patience parce que surtout ndaw yi ñoom yaakaar nañu ni bu ñu falee projet bi rek bu ñu falee Ousmane Sonko wala jomay Faye rek seen problème réglé wu na daar daar. waaw xam nga jàmbaar soo ko yebalee tool. sa xel dina dal ni di demee dina liggéey. Mm-hmm. li ci des nag ci loxo yàlla nekk mais jàmbaar. jàmbaar laa la wax de. boo ko yebalee nga ni ko demal mu dem mu demal la xare yow di nga am confiance ni kii nga yebal mat na li mu doon. mais sénégalais yi dinañ am toog di xaar sénégalais yi sénégalais yi. ñoom ñëpp li nga xam ma xam ko ñoom xam nañ ko sénégalais yi dañoo sant yàlla comme mbuumu njaam gi fi nekkoon toog na comme ñi fi nekkoon di jaay doole di séddoo alali senegal jeex na. kon sénégalais yi dañuy am kontaan gis nga sénégalais fi mu nekk nii xam nga ku ñu yeewoon ay at ñu xëy xëy yiwi la maanaam ku ñu jàppoon njaam xëy xëy ni la yow goreel nañ la waaye yow kay nga mën a di nga mën a xaar. Mhm. te li ma xam ci ñoom li ma xam ci président bu Diomaye xam ko ci président Ousmane Sonko man xam naa ni ñu may ba ñu indi procès bu toll nii procès bi ñu présenté la ñuy doxal te buñ ko doxalee. bu soobee yàlla du yàgg dara solution am. léegi ci domaine waaw baal ma tuuti. ci domaine bi ngay yëngu. waaw muy chauffeur ak transporteur. lan mooy seen seen mbëbët lu ngeen di xaar ci président bu bees bi. ñun boo gisee sax euh, nga baal ma tuuti boo gisee ñu dajaloo. ca ba muy mitti ca ba nga xamante ni bi kenn ñi mu wala taxaw ci mbedd mi ni Ousmane président Ousmane Sonko la àndal ca ba muy mitti la ñu dajaloo ñun ci Sénégal gépp nag quatre régions de Sénégal. ak cinq départements yëpp ñu ànd ñu ni ñun daal même bu dee dañuy dem kaso wala ñuy dee ba jeex ñun dinañ ànd ak procès bii nga xamante ni bii mooy procès Pastef nga xamante ni bii mooy procès président Ousmane Sonko. kon association bi yàgg na. parce que man maa ngi doog a dégg. association euh, euh, chauffeur et transporteur patriote. yàgg koy soog a dégg. yàgg na président lu yàgg la parce que man président Ousmane Sonko keroog ba mu jógee impôt domaine ñu ñu jëlee ko fi ci lu dëgg ba mu defee déclaration laa bàyyi ku ma ma sàndal ba fii ma taxaw di wax ak yow. Ah te moom maanaam Pastef dafa am mouvement transporteur am mouvement magi magi Pastef am mouvement euh, waylaago yi am mouvement am mouvement am mouvement. ñooñu ñëpp ñu ngi leen di dégg. ay Modabab doomu daara yi ñu ngi leen di dégg. waaw mais mais man transporteur. Euh, euh, Pastef. patriote maa ngi koy soog a dégg. waaw pour pourtant man ñun def nañ ay réaction yu bari. même bi ñu demee ba nga xamante ni dañoo war a def élection maanaam étudiants yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci Sénégal gépp d'accord université bu nekk ñu war leen a jël yóbbu leen ñu dem wate ji ñu indi leen loolu ñun ñoo ko doon liggéey. kon loolu def ngeen ko ci campagne bi daal. loolu ñun ñoo ko doon participé ngeen ci bu baax a baax. loolu ñun ñoo ko doon def mais ñun mm-hmm. jëli nañ ay oto yoo xam ne fu ne Sénégal suñu mo suñu mbokki patriotes yi ñëw gaare oto yi parti bi def ay génn def ay moyens góor góorgóorlu fexe nañ ba képp koo xamante ni bi yaa ngi war a wate ji Ziguinchor nga jóge Ziguinchor jëm Tamba wala nga jóge Tamba jëm Ziguinchor wala nga jóge Ndar wala nga jóge fu ne ci Sénégal bi góorgóorlu def ay pexeem ak i yi mu am même bu dee amul doole ñu fexe ba ñëpp wate ji ci jàmm ñu fexe ba élection yi jeexee tamit ñu taxawu leen ñoom ñëpp yàlla def ñu taxawu leen ba ñëw ci jàmm. d'accord léegi mais lan mhm. gi. c'est ça xaar ci li ñuy xaar ci moom mooy ñun li ñu nekk président bi nga xamante ni mooy sortant bi. Mhm. nekk na fi douze ans mosuñoo defal dara. yéen waa transporteur. transport interurbain laa la wax. interurbain mooy jógee Dakar dem si région yi dëkk ak dem di dëkk dëkk ba dëkk nekk na fi fukki at ak ñaar. ak li Macky Sall def si transporteur yi transport yi Macky Sall mosuñoo defal dara taxaw naa fii wax ko. Hmm. taxaw naa feneen wax ko te kenn du ko weddi te ku ko weddi ci ñoom na ñëw nii lii la fi def. sept places yi ba may ba may jóge suñu rëkk di ñëw Dakar sept a ngi daw. te Dakar léegi ma am fi minimum 40 ans cette place bi dafa nekkoon boo demee tey sa gaar ba gaar boo dem Sénégal cette place yooyu nga fay. fa lañ fees dell. Njaga Njaay yi nga xamante ni bii sunu maam ak sunu bàyyee ñoo ko yoroon ak car ya ba léegi ñoo nekk ci dëkk kon lu ni fàng defe naag neex kenn du ko jeex kon bu doon dafa def dara ci transport loolu dafay jóge renouvellement parc automobile bi par exemple defu si dara andil nañu ay oto woote jam ñaajo ñu woo Sénégal gépp mhm. ana oto yooyu mu fa oto yi teg caabi ci loxo loxoy suñu benn mag bu ñuy wax alaaji Omar Ndiaye woon mhm. Dakar dem dikk moo amoon mhm. waa léegi ay millions de personnes bu ñuy dund ci dara nga xëy xëy indi oto yu bees oto boo xam ne kenn du ko arrêté su jógee fii jëm Tambacounda kenn du ko arrêté mu am clim am sécurité nga ni yéen ña doon dugg ci oto transport yi kaay leen di dugg ci di ko xëccoog ñi nga xam ne ñoo ko yoroon mu ngi mel ni tey nga jëndoon ay gaal ni ni napp ni nappkat yi yéen duutu leen napp yéen léegi man état bi damay napp jën di jaay comme yéen dama leen di concurrence wala nga jënd fas jënd machine jënd seret dem ci àll ba ni baykat yi kat seen tool yi man damay bay comme yéen. mais yéen lu leen tere ngeen tamit ngeen améliorer service bi. waaw. Hmm? maanaam xam nga loolu ñëpp mënu ko. boo jógee Dakar wala voyage si régions yi jël Ndiaga Ndiaye pratiquement. njëgëjaay yu xoosu nekk ci état yu délabré ngay ngay ngay am dama joxe exemple boobu rek donc nag bu état améliorer service su Sénégal dem dikk yéen aussi da ngeen war a tamit yéegal niveau bi améliorer seen service état mun tayem ak ñun état xaalisu Sénégal yëpp la yor ñun kenn ku ci nekk da ngay débrouiller dem lebi garanti say kër say bien pour nga mën a leb pour nga mën a liggéey kooku ak état bi nga xamante ni bii moo ñu ëpp doole ëpp ñu moyen mënuñoo concurrence te loolu ma fi am état lim ñu proposé woon mooy indi ay oto sensé oto yi fi nekk. parce que indi oto yu bees indi oto boo xamante ni bii baaxatut am na fi quarante ans trente cinq ans nga bàyyi ko muy daw ak oto bu bees bi loolu du sécurité li état bu baax di def mooy yërëm askanam yow boo dee liggéey nga yor oto boo xamante ni bii lii oto bu màgget la état indi la oto bu baax ni la sa oto bii kat dama koy jël ci nangam oto bii nag nangam laa la koy joxe waaye weer bu dee nangam ngay joxe. muy lu leer loo xamante ni bi comme ñun ni ñuy dem lebe ci banque yi comme liggéeykat yëpp ni ñuy demee def prêt loolu bu ñu ko defee bu ko defee loolu day nekk sa waa kër dinañ dem maanaam waa réew mi danañ circuler liggéey bi dana dox ki ci nekk dana am dara te dana fay état te dana mën a fay ay emploi ñun loolu lañuy ñuy séntu ci état waaye état boo xamante ni bii du la defal dara boo waxee dëgg mu jàpp la tëj boo la ñokk ay takk der yi ci tali bi foo dem ñu arrêté la doo dem doo dikk li ciy xew lépp yéen xam ngeen ko mais yéen tamit kenn desul lente demul ñu des parce que tamit très souvent même bu fi accident bu metti amee sax bu mujj bu cyclo bi ah. Pierre on se rappelle de ça hmm. dañuy wax très souvent du ay Sénégal dem dikk ki ay bus Dakar yoo xam ne c'est am na commodité ñoo koy def d'habitude c'est ces véhicules là qui le font te à chaque fois buñ leen indexé ngeen jëlaat toor bi yëpp teg ko ci tali Euh, éclairage public beeg euh, aloo ko jafe-jafe yëpp yëpp yëpp daanaka yéen a koy def loolu aussi est-ce que du waru leen def mea culpa seen biir ngeen def seen pootum biir. waaw li nga wax rafet na waaye gis nga ndaje moo gis. Mhm. maanaam li xewoon ci réew mi maanaam gis nga waxtaan yooyu nga daan gis ministère bi transport di ko woote ay jam ñaa jóg yooyu. Mm. du ñu woo transporteur bi nga xam ni Sénégal gépp xam nañ ni kii transporteur la soo demee service des mines boo boo boo def boo interrogé turam da ngay gis am na ay oto. am na ay carte grise kii transporteur la ñoom daaw ñu def loolu ñoom dañoo amoon seen benn équipe boo xam ne buñ amee soxla ci transport dañuy dem woo ñooñu nga xam ne lu ñu wax rek ñooñu ni waaw bu ñu génnee ni waxtaan nañu ak transporteurs yi loolu ñun wax nañ ko fu nekk mais bu fekkente ni bii dañ doon woo transporteurs yi di waxtaan ak ñoom changement xëy na dina ci am mais tey ni nga xamante ni bii boo leen xoolee dañuy solo ba rafet yor seen saak nga xam ne dem ci plateau yi ak dem ci ndaje yi rek la ñuy def. mais nag xam nga secteur transport nag du secteur waya waya boo xam ne da ngeen war a mën a toog rek ay nit taxaw fee di di leen bu boo yéen da ngeen war a organiser te telle sorte que tey bu état soxlawee xam na fu muy jaar xam na ñu muy woo xam na les acteurs concernés. waaw loolu nag moo ñu naqari bim ñu naqaree te ñu présenté ñu beneen procès boo xamante ni bii liñ ci xool lépp doy nañu ànd ak procès boobu. moo ñëw tey parce que tey jamono Macky Sall moom mën nañu ne wéy na. waaw waaw nekkuñu pour def forcément le procès de Macky Sall. mais yéen comme que fal nañu leen fal nañu sa candidat di Bassirou Diomaye Faye. concrètement lan ngay xaar ci moom ci secteur du euh, transport. li may xaar ci moom xam naa ni. Mhm. ni ma xamee basiiru jomaa Faye président Bassirou Diomaye Faye ni ma xamee dëggoom mhm. ni ma xam-xamam doyee xam naa ne Sénégal jafe-jafe yi ñu fi gis dina ci def lu mu man daar daar lu gën a gaaw. foog fa nga koy foo koy xaar ci transport. fu ma koy xaar ci transport mooy ñu teel a def changement oto yu màggat yi nga xamante ni ñoo fi nekk. renouveler parc automobile ñu sensé ko. Mhm. ñaareel bi aussi as bi nga xam ne moom lañ jox oto transport nga xam ne oto day daw 30 vingt 25 ans ca France nga xam ne yow oto bi ngay dem di jënd ca France bi nga koy jënd da ngaa fekk muy daw nga jënd ko mu ñëw Sénégal ñu ne oto bi dafa màggat mënatu fee daw te mu leer na ne oto bi moroom oto mam wàccandooloon ma nga ca France di daw. ma ci Allemagne oto bi ñu lay aaye mu daw fii oto bi mu fi fekk moo ko gën a bon te ñu ngi ko bàyyi mu daw fi kon ñu ngi séntu ci moom mu xool nan la ñuy jéem a xoolal aas boobu pour transport en commun mu defal ñu ci ay ndimbal ba oto yooyu ñu mën ci jot. te mu dimbali maanaam ñuy continuer di jël oto màgget yi. Europe di ko indi fii ñu fiy daw parce que li nga wax loolu man damay dem damay dem fépp ci Europe. Mhm. xam nga Europe rëyut noonu man damay gis man damay tukkikat laa dem oto laay jaay. transporteur la man xam naa li xew ci bitim réew xam naa li xew ci réew mi ma nekk te bu ma ko dalee def léegi-léegi mu yàgg waxuma ne oto bu màgget na ñëw France da ngay gis benn société bu dem jënd ci beneen société oto bu fa doon daw mu continuer di daw ci moom loolu dafa am ñun ñiy jóge Afrique dem di Europe di jënd ay oto dañuy dem fekk oto bu baax bu am visite technique France tu France oto bu ñu defal visite technique wala Allemagne wala Hollande wala tous les Europe visite technique bu dañ lay wax ni oto bi baax na mën naa dem. gaa yi nee nañ oto yi dawatul France rek ngeen di jënd ñëw fii di ko raboté di ñëw di ko dawal mooy keneen France nañu ko ba pare suñu tali yu bon yi daw une semaine yàqu waa d'accord naa mais loolu xam nga wax pour am na ñoo xam ne dañ mën nañu wax pour yàq te xamuñu xam nga mus mënoo ni mun mënoo munoo wax mbuur nu mel te musoo faa dem du dëgg mais am nañ ay sources quand même d'accord naa ay journalistes lañu d'accord naa loolu dama la koy nangul oui waaw mais dama la bëgg expliquer daal ni la li ñuy xaar nga ñu wax ci état bi mooy mu fexe lu gën a gaaw mu senser ñu suñ oto yu màggat yi nga xam ne waaye yow nangu nga ne am na ci ato yoo xam ne tey bu ñu demoon visite technique bii waaw ñu gaare leen génn génn am visite technique nan am sa visite technique nan lañ dafa am visite technique tu te rends compte des fois ay oto yoo xamante ne nii day wenga wenga wenga ba loolu loolu li ma la ci bëgg a expliquer daal mooy maanaam réew mi ñu nekk tamit réew mu am koom-koom la peut-être waaye ci dafa am côté bu mu féete maanaam réew yu néew doole lañ ndax man mun naa la wax tey ay tracteurs yoo xam ne oto yooyu ngay wax dañoo weng suñ si jotoon jël parce que ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo perte maanaam dañoo liggéey di am oto bu bon ak conditions yu bon ba nga xam ne dañoo dañoo fay dem nañ ba ñoom seen jëmmi bopp dañ leen daan liggéeyal dem nañ bay liggéeyal seen bopp te mënu ca dem loolu lépp ñàkk gouvernement bu bon la mais ak gouvernement bu bees bii nga xam ne président Diomaye fay moo ko jiite. Mm-hmm. ñun ñoo ngi am yaakaar ci qualité bi ñu xam ci moom que ñun du ñun kese de ñun transporteurs yi ak yeneen gox yeeg gox goxaat yeeg yeneen entreprise yi moom am na xam-xam ak euh, ak distion boo xam ne ñu dinañu dinañu ci dimbali kenn ku ci nekk sa ak ak sa yelleef dina ak si yow. am ngeen yaakaar daal. waaw xool ngeen projet bi gis ngeen ci parti bu ñu jagleel wàllu transport. waaw projet bi moom. xam nañ ko wóolu nañ ko gëm nañ ko. xool nga ci transport laa parti bi. bi ñu jagleel yéen. transport boobu xool nañ ko parce que laaj nañ ci suñu xalaat. d'accord waaw laaj nañu ci suñu xalaat parce que euh, bu ñu ci laajee suñu xalaat it wax nañ ci suñu xalaat loo xam ne sax booba du tey ak du démb. léegi loo koy digal ci ministre bi ñu war a dénk transport. est que mu nekk ministre boo xam ni màcc. waaw mais ñoom nag dañoo am benn sens ñoom ñun ñun waa Pastef. Mhm. parce que yàlla moo def. ay xale xam nga réew ay at ko yor réew xam-xam moo ko yor mhm. te comme ñoom yàlla may na leen macha allah ay xale yoo xam ne yu am xam-xam lañ man duma leen duma du awma dara lu ma leen di conseil mhm. parce que leer na ma ni man ñi nga xamante ni bii ñoom laa nekkaloon démb nekk ak ñoom tey te ñaan yàlla nekk ak ñoom suba man xam naa ni seen lépp doy na ma mhm. waaw président Ousmane Sonko qualité doy na ma président Diomaye Diakhar Faye fay am doy na ma. te xam naa ni du yàgg dara doo déggati benn sénégalais boo xam ne day jàmbat wala day jooy. seentuwuñ loolu ci ñoom. mu ngoog jërëjëf euh, Birane Diagne. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, yow tamit euh, Pierre. ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax sujet bi am na solo. Mm-hmm. chaque jour c'est toujours passionnant de parler de transport. transport absolument voilà parce que ñun ñëpp a ko jël te ñëpp a ko soxla. c'est ça surtout mu nekk secteur bu névralgique. Mhm. surtout révision euh, at yi passé gis si mm. réew. dugg dans l'intérieur du pays. oui rencontre trop étroites. loolu pour ñaari oto mën a mbëkkante dafay yomb trop. yomb éclairer également tali bi parce que tali tamit day lëndëm. Mhm. fu la timis fekk pratiquement euh, sa fit du dal sax booy mhm. booy voyager quoi. donc nag bon rapporteurs yi nga xam ne dañoo nekk si Ziguinchor ca université seeni kër dem ci université ba ñeenti fan balaa élection bi élection yi jeexee ñu bàyyi seen kër dem ca université ba ñeenti fan balaa balaa xale yëpp di dellu mhm. noonu lañ ko defee woon Kees noonu lañ ko defee woon Bambey mhm. te noonu lañ ko defee woon université bu Saint-Louis te it noonu lañ ko defee woon ci université bu Dakar très bien jërëjëf def ko nag ci gratuit sans condition macha allah jërëjëf voilà di sant télé bi nga xam ne nag mhm. télé buy ruus ci Sénégal moom bokku ci même bu dee dañ koy tëj même bu dee dañ koy nangu même bu dee dañuy retirer licence moom ak équipe am taxaw nañ féete ak askan wi parce que féete ak askan wi mooy wax dëgg te wax dëgg moom la yàlla di fay kiy wax leneen lu mu ci mën a am amul solo kii wax dëgg la yàlla di fay te Walfadjri Sénégal naw nañ ko bitim réew naw nañ ko àdduna bi yëpp naw nañ ko naw nañ seen équipe jërëjëf parce que zéro zéro defee ak yéen. fu leen dëgg fekk da ngeen taxaw wax ko même lu ci lu leen ciy fekk di ngeen ko wax. merci waaw en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. a ngi leen di sant di leen gërëm may fàttali ne yow yaay njiital euh, chauffeur yeeg transporteur patriote yi léegi léegi kon sans plus tarder sunu euh, chronique euh, sunu gan ñëw na sax ci wàllu chronique bi moom du gan kër gi Bakary Domingo Mané dañ koy installé léegi léegi ngir waxtaanee liñ dese. Mm.